sickat bu ñu kenn wor te nag li ma leen bëgg waxal mooy gis nga bu baax àll ñëwee ñu voté ba pare mu toog ci saalam di déglu résultat dem na jànnatu dem na foo xamante ne war na faa dem ci Touba mu ñëw fii Daaru Xuddoos mu dégg fa naka su dul noonu bis ba dina jeex ñun ñu des ak moom te dootuñu mën a dem ci moom as gor day gore. fii ci koñ bi nga xam ne mooy koñu Daaru Xuddoos nag suñ amee jomm wala nu am ngor bàyyi àll si li mi daana ko jàppale lu nu man jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite mbir mi nag man maa nekk ci seen ginnaaw kii nga xam ni mooy secrétaire bi sama kër lay yeewoo muy maam jaara ja moomu léegi ñoom ay góor lañ ay jàmbaar lañ ñu takku laxasaay lañ keroog bi nga xamante ni sii la ñuy ubbi autoroute Ila Touba bii Amina Fall daa ñëw ci man ma ne ko wool Baye Alla nu ngeen mën di def na ngeen takku dem teertule ko te jàppale ko lu ngeen man Baye àlla mii nag képp koo xam ne sii ni nit ku baax nga wala ngay bëgg bëgg lu baax dinga koo ko jàppale ci lim bëgg ba nu mu ko bëggee mu amee ko ni jàppale nga nag du lenn lu dul lu dul mooy aw carte la soxla bu bis baa ñun ñëpp na maa si jox ko seeni carte bu ko kenn mooy. Baye Alla suñuy carte ñun ñoo ko moom te Serigne Saliou xam na ne soo ñëwut woon fii jàpp nañ jàpp dinañ la voteel ndax war nga ni ko te jëfe nga ko ci Touba. Fallou Seck di xamle ne jóg nañ bu yàgg tey soog a ñëw Moustapha Sylla di xamle ne ndamul président Macky Sall ñoom apéris yi farek bay àll ñoo koy assuré. xeex li ñu bëgg nag mooy képp koo xamante ne si yaa ngi ànd ak Baye Alla Sylla li ñu koy dooleele rek mooy bis ba incha allah le 24 février balaay midi ñu mën a xam fa ñu féete. fi ñu féete nag mooy jox président de la république président Macky sàll deuxième mandat boo xam du am sikki sàkka nag ñoom li taxoon bu yàgg ba léegi muy dox ñu ngi ciy doog a agsi muy le 24 février 2019 bis boobu day bis bu am solo day bis bu am solo ci Baye Alla day bis bu am solo ci ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom mais day am day bis bu am solo ci population wu Touba. di leen wax la ñu moytu politiciens yi nga xam ne. lu mel nii day xew rek ñu daw ñëw nañ bàyyi xel ki nga xam ne boo waxoo de Maam fekk ko fa boo waxee dem turam fekk ko fa maa ngi jéglu bu baax ba baax bu fekkee guddal naa di leen wax ne deuxième mandat bi au premier tour fii ci Touba Baye Alla Sylla ak ñu mu àndal ñoo ko res asalaamaaleykum wa rahmatullah Baye Alla Sylla di xam ne nii amul kenn ak xaar ma yàlla tey commencé na ci Daaru Xuddoos waaye pexeem mooy dem fépp ngir falaat président Macky Sall ndax moom amul sans interdit ci réew mi rawatina dëkk bu sell bi di tuuba di leen sant bu baax di leen gërëm di nuyu ñi ma di nuyu ñi ma fekk di nuyu góor di nuyu jigéen nuyu waa Touba ñëpp nuyu xale yi. nuyu xale yu jigéen yi kon tey ñun dañoo bëgg ubbi fii suñ campagne fii tey ci Daaru Xudoos muy firndeel niñ ko doon waxee dañoo bëgg rek ci Touba ci Touba gii duñ am ak kenn xaar ma yàlla loolu la ñuy ñaan yàlla dañuy fas yéene fépp fu ñu dégg ñu ne ay militants nga fa yu bëgg a wateel Macky sàll ñu bañ a am xel ñaar ñu dem fa taxaw wax ak ñoom sulal jale nak damay nuyu aminta amina fall amina fall mang koy nuyu bu baax dañu tamu tamit comme fi dekkup magla seigne modou mustapha moko sañ nu tan tam ubé fi suñ campagne jàkkaarloom ak taskatu xabaar yi muy dellu si seen ubbite campagne électorale bi ci Mbàkke yenn ci seen leader apériste yi Macky Sall doon cité ci ab nuyoom moom àll si la di xamle ne mbir mu ñu mel moom ñuru ko ndax bay ci sa wewu tànk moom daal dëkk bi xam nan moom mooy kan ndax ku gis lii nu ubbee war ngay mën a xam ni Macky Sall am na lum nu defal te nit ñi ñoo am yaakaar ci moom ni yaakaar ne day dolli ndax ku ñu ubbil autoroute bi ilaa wax dëgg yàlla amatuñu ñun payam moo tax nag am nañ yàqin ci ni premier tour dañ koy am li tax ñu ñëw Daaru Xuddoos nag li tax ñu ñëw Daaru Xuddoos nag Daaru Xuddoos dafa mag ci dëkk bi yaakaar naa moo fi ëpp bureau te ñun dañoo fas yéene duñu ko bàyyeeg ñi ko yor kese ñu ñu seq frontière diggante Daaru Xuddoos ak Madiana li leru daaru xuddoos leru madiyaana jàkkaarloog moom dañoo fas yéene bu ñu duggee madiyaana rek dugg daaru xuddoos daaru xuddoos nag day dëkku mag bi moo tax ñu jëkkee daaru xuddoos ban appel ngay lancé sa gars yi man sama gars yi li ma leen di appel mooy nit day am xolum muñ nit kenn ku dul juum amul ba noppi ñoom dañ koo war a sagal sagal gi mooy président dafa ñëw ci ñoom di leen jox ay moyenam di leen jox alalam bu ñu fekkee nag ñoom dañoo ragal wala ñu yox yoxi nañ ñu ko wax ñun dañoo fas yéene dem ci terrain bi ba li ñuy wut ñu am ko ñu tudd la ak ñu bañ laa tudd ñooyam buñ la tudd da ngay fexe ba waa Touba xam la di la tudd loolu yaakaar naa mooy l'essentiel bi man ama problème moom ñu tudd maa mu bañ maa tudd ndax Touba ku fi dégg ku dugg rek da nga dégg sama tur mu neex mu naqari kon ñu tudd ma ak ñu bañ maa tudd rek laa yemale